rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen jaajëfal di leen ziara di nuyu yéen ñi nga xam ne yéenay seetaan seen télé bii takko Tacko TV rawatina yéen ñi nga xam ne yéenay safoo seen émission bii di visite daara ku ni visite daara nag di nga sos daalem seeti ji daara te ku ni daara di nga xam ni ndaw ñi moo tax ñuy wax. fi may xalqa jigéen ñi fi la jigéen ñi di jàngee ñu def lu boobee benn xale rek incha allah mu tere ñu ayatun min أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر yonent saa sallam ne xayrukum man ta'allama al-Qur'aan wa 'allama ki gën ci nit ñi mooy ki jàng alxuraan te di ko jàngale te képp koo xam ne jël nga sab dërëm nga def ko ci daara rek yow bokk nga ci xayrukum boobu ndax dafa yaatu bu baax a baax incha allah إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل lahum arrahmanu wudda Masha Allah N'oubliez pas de vous abonner sur votre chaîne Tacko TV. Tacko TV, la lumière du cœur.